affiche boo mu nekk affiche boo xam ni combat jàq la mu ñaari jàmbaar koy bëri. Balla Gaye 2 da wax naan xaalisu làmb lañ ma ngéntee Boy Niang ni ko may doomu dégol Balla Gaye 2 ni ko man la ñu tuddee Balla Gaye 1 Boy Niang 2 ko man la ñu tuddee ba ba Boy Niang 1 comme ñoom ñaar ñii ay lambaloog la ñu waaye ay borom cob la ñu tey coba leen boole ñu bàyyi nag le lion de Guédiawaye Balla Gaye mu nuyoo askanu Sénégal ndax ñëpp ñu lay seetaan Balla bismillah kaddu gaa ngi noonu. jërëjëf. ak Balla maa ngi nuyu ñëpp. ginnaaw bu ma sant yàlla jël si yonent bi salaa salaam sant suma ñaari waajur di sant suma sëriñ sëriñ Basiru Baara ñaan yàlla yàlla yàlla yokk leeram te taal ci barke bi nuyu suma xarit suma lépp seen Aziz bu seen Baara di sant waa kër seen Baara yëpp yëpp rawatina nag di ñaanal seen Muntaxa Mbàkke bu yàgg fi loolu te wér dafa watuma ak seen ma Alaaji Malick bu Kunta Njaasaan maam ni maamu laay dabatu Cheikh na Cheikh Saadu ñëpp ñu yàgg loolu Laayeen xaadar maa ngi nuyu Gaston production bu baax a baax ci nuyu mbër yi nga xamante ne teew na fi di nuyu suma adversaire Boy Niang di nuyu Sob di nuyu Franc di nuyu Reug di nuyu Forza Marley Sakes di nuyu Makan bu baax a baax maa ngi lay ziar waa Distingo bu baax a baax. rawatina ay supporters yi nga xamante ne ñoo ne fi yu Boy Niang yi ak yu Balla Gaye ak yu Marley yi ak képp ku fi teew di nuyu si tamit service d'ordre bi nga xamante ne ñu ngi suñu waa dëkk waa Casamance bàyyiwuma fenn waa Sédhiou waa Bantara waa Bignona waa Kafouar di nuyu Guédiawaye gi ma dëkk di nuyu diaspora bi di nuyu chinois yi suma mag Lirou Diane di nuyu waa école de lutte bu baax a baax a baax di nuyu suma kilifa suma xarit suma mag Abdoul Aziz Ala maa ngi koy siyaar di ko ñaanal yàlla lii mu def jaawoon te àdduna technique seen bët dana yàlla guddal fanam ak wéeram di nuyu ma sata di suma xarit suma doomu ndey Babacar Ndiaye Kor Ndiaye Cheikh Mbacke Omar Gueye Baara Gueye bàyyuma kenn Andaw <laughs> Andaw maa ngi nuyu Pape Mama Fall maa ngi nuyu baax a baax di nuyu suma père père Thiaw bu baax a baax di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jàppale Balla Gaye numéro Mbaye Diop Talla Mbengue Modou Simon Omar maa ngi leen di nuyu baax di jox seen wàccuwaay di nuyu Ameth Naar suma xarit di leen bu baax a baax di jox jërëjëf. jërëjëf Balla Gaye 2 Boy Niang yow it ñu bàyyi leen woon nuyoo askan ah, wax naka ngay waajale bis boobu le premier janvier. Gaston production tëgg ko sa diggante ak Balla Gaye 2 ak li nga xam ne tey jii moom ngay dégg say supporters ak gis bi naka ko koy waaj a leen Balla Gaye li mu leen wax mu waa CNG ñi nga xam ne ñooy tiital bi. ñoom ñooy kilifa sport yi ñu toog yi maa ngi nuyu di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di yi toog yëpp les grands champions maa leen nuyu bu baax a baax. di nuyu Makan di nuyu sama papa Gaston moom mooy sama mooy sama gain wax naa maa ngi nuyu waa Pikine maa ngi international di nuyu Pikine fi ma dëkk. di nuyu képp koo xam ko parce que foo mën a nekk Sénégal maa ngi lay nuyu di jox sa wàccuwaay ñu nekk Sénégal ak ñu nekk ci diaspora bi yëpp di maa ngi nuyu tudd yëpp di jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu waa kër maam Cheikh na Cheikh Sadou Abi maa ngi nuyu waa kër maam Cheikh Sadou Abi man foofu laa bokk di nuyu waa kër Cheikh na wulu maam yëpp di nuyu sama waa kër maam Cheikh Ibrahima Seck di nuyu sama mbokk géwél yëpp di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di nuyu adversaire bi may bëri jox cëram ak wàccuwaayam di wax ne nag espoir dafa rafet ñu bokk ndey bokk baax lépp dafa war a rafet Guédiawaye ak Pikine sorewuñu waaw yéen supporters yi ci kaw da ngeen a war a rafetal def jàmm kaf ree fu waru sedd déglu ma ñëw tàccu leen loolu waaye tàccu leen loolu. dëgg ma fu war a fu war a tàng jër fu war a mooy maag waa ji ñaan ma ko dara te may dara mais yéen bëgg naa ngeen nekk ci jàmm ngeen kaf ngeen foor ngeen ne incha allah. Balla Gaye Boy Niang nee na ñaan la dara bu ko dara loo koy tontu. waaw balaa maa loolu maa ngi nuyu waa CNG di nuyu Birame wax dëgg yàlla échange bi rafet na parce que gis nañu liggéey bu baax bu rafet bu ñu def. kon maa leen nuyu baax a baax waaw làmb comme signature lañ nekk euh, man xaw ma sax maye bay ñaan du ma ñaan doo maye li ma moom laay jël ñaan doo maye wala nga moom ngay jël bala lan moo tax nga jël booy làmb làmb moo leen boole làmb moo mais ci naka la leen boole doo bëgg a décortiquer non non mënu ma leen décortiquer làmb rek moo ñu boole. suuf lépp doo ko décortiquer. non làmb rek moo ñu boole da ngay naan ba douze ba. Boy Niang Saala. donc dama bëgg a relance question Boy Niang. Boy Niang mii. waaw. dafa am stratégie bu doy waar bu mu def. dafa nekk ci làmb di bëree di bëree di bëree di bëree bu mu yàgg. mu jël bëtam bii teg ko ci Balla Gaye 2. sonal Balla Gaye trop. fu Balla Gaye génn mu ne ko kaay ma ma bëri ñëw. fu Balla Gaye génn mu ne ko kaay ba bëri yow Balla ne ko du maag yow sama rakk demal ci moom boo pare nga dikkaat Boy daal di jël Sa Thiès ñenn ñi sax dañ ne ñenn ñi sax dañ ne Boy Niang musul soxla Balla Gaye mais Sa Thiès la soxla woon mais dafa largué woon mu jël Sa Thiès dugg fa fordo nga duggaat lu tax nga duggaat loolu tontu bi dafa dafa neex dama ne question bi dama neex question bi nga posé question bu neex la xam nga géewaay dama fa dugg def aliment de démarrage xam nga aliment de démarrage mooy boo jëndee poussière bu ndaw aliment de démarrage ñu ko ñu ko jox loolu laa def géewaay def aliment de démarrage daan fa ay bis ay ay got ñëw ci aliment de croissant bi boo ci nga tudd noonu ñu gaan benn toog ak buñ jeeg ñeneen ñeneen te yàlla dafa def ni moom mii mooy sama aliment de finition te mënu ci dara allahu rabbi bu xeexee ba duma ko ko bëree ba daan incha allahu rabbi Balla Gaye de yàgg ci mbër booy ñëw mën nañu yaay magam yaa ko jiitu ci làmb mais bi Cheikh ko dafa am solo dafa fa ay mbër mais bi leen daan ba dëgër ci yow la ko teg mu topp la di dëkk di dëkk nga ne ko jëlee sama rakk mu jël sa rakk daan ko moo tax sax man lan moo leen boole mais question bii question la boo xam dafay ñëwaat Balla Gaye 2 Boy Niang kàddu mu wax nee na bëtanil ci yow la ko tegoon te daan rek moo nekk ci moom doo bëre doo xeex doo dóor mooy li fa neex li fa ah, mais yow xam nga buñ ma def bëri na fàtte naa ko yàgg na li ma dem Pikine bëri nga fàtte naa ko yàgg na lam moo ñu boole dina xam ne lam moo ñu boole amul problème. la la ilaha illallah. Cheikh ah Cheikh Alaaji Sala damay ñëw ci Boy Niang Boy Niang laa jox bëree say borom bëri nga ak ñoo xam ne ñoo la mag mais bi ñu gisee nga dugg ci ñaari ñuul da nga am problème bi nga duggee tabatin da nga am problème bi nga duggee ci Lac 2 da nga am problème te Balla Gaye de junior yi la bokk ndax jàngat boobu yaa ko koy def yaa koy def si biir bopp xam nga lan mooy sportif doo ñu ko xam nga mooy lan boo boo defee échange bi échec ci nga jàng ci. ci ci ne ci ay leçons. moom bu ma ñëwee maa ngi ba bisimilah dina xam ne man yi ma paase tiré naa ay leçons incha allah wala. Balla Gaye 2 combat bu mu daan dem da daan maye heure. Boy Niang ñaata minute nga koy may wala ñaata seconde. moom mooy xale moom mooy maye minute. Sassane. Sassane. waaw Boy Niang. incha allahu rabi. kii du ma may temps man maa koy may temps. mais Malick. du la may temps yaa koy may temps. maa koy may temps ñaata temps ngay may Balla Gaye. une minute laa koy may. une minute. bu ñëw bu nekk ma fekk ko maa ko wax incha allah Sénégal. Eh! El Hadj Malick Thiandoum. non. El Hadj dégg nga dégg nga ñaari mbir yi ñu doon waxante. non man damaa waaru. ayca. li ma waar mooy. Boy Niang nii. dafa sóobu ci mbojum Balla Gaye lool. li ma waar mooy Boy Niang dafa jëme Balla Gaye lool la Balla Gaye daan wax moom la nga waxoon ni ko une minute la may Balla yaa daan maye minute Boy Niang la boo bëree ma daan la boo xeexee ma duma la lu la mën mus na wax tey nga ñëw ne tekk tekkaaral mel ni mburu bu ñu teg fan Balla lan la lu xew dara xewul jàmm rek làmb la non man ma li ma jàkkati lii du làmb mbapat la pourquoi mu nekk mbapat. parce que mbapat la. da nga xeeb ki ngay bëreel wala lan. je le respecte beaucoup. ma xeeb doomu aadama wax ma sa adversaire. mbapat bu arbitre ne pour kurpa yi nan nga ni mbapat. moom man tam mbapat laa ko jàppee vraiment. lu tax nga jàppee ko mbapat. garaawul. jërë. Lamine Lamine waaw dafa mel ni dafa mel ni lu xew. Babacar. kooku mooy ñu diviser. ah. waaw déglu ma ñëw waaw jërëjëf moom bu ma bu fekkee daf may minimiser xam naa kon dafa waxtaanu waxtaanu diine ak rakam jee toog waxtaanu waxtaanu diine ak rakam jee toog kon du ma minimiser parce que foofu laa jaarul ak rakam mais incha allah moom le premier janvier dina xam ne am naa gas. premier janvier une minute. incha ma nekk déglu ma ñëw déglu ma ñëw sama papa dafa génn wax moom incha allah cinq minutes boo ñaataan ko bu dégg moom interview mu wax ci loolu te papaam moo wax cinq minutes kon maa ngi koy xaar may wax ni sama papa dafa xër rek waaye li ma may sax daa bëri cinq minutes daa bëri bu boo ñaa maa la wax yow Balla Gaye ba bi si ñëwee foo nekk ba fekk la incha allah rek boo bëree dama lay daal mën a dàq bëri dama lay daal dama lay dama lay laal dama lay laal loolu duuma la ma koy taal. jërëjëf. léegi Balla xanaa ba léegi ba kooku wax ci. Malick lu mu demee nii. Malick Balla signature bu soo mel nii. Malick. waaw comme léegi Balla tontuwuma. tontuwu la tontuwu Cheikh Sarr. nañ ko bàyyi ak Lamine ak Babacar. ah ak li nga xam ne moom mooy Fadam 2. waaw da ngay wax ci kaw nag. ma ne question bi dañ koy ñaari ñaari question dama ko fekk buntu këram man ma seetaan naa sa interview bi bari bari boo jëlee mu ne la Balla Gaye de mooy suñu idole moo ñu dàq bëre te sama buntu kër bii bu ma jàkkaarloo ak moom dinañ am loolu dama bëgg nag devant tout le monde tey nga waxal ko ci kanamu Balla Gaye numéro 2. mais loolu moo am man nangu nga ko ci bëre baal ma ko ci bëre parce que dàqu maa bëri dàqu maa fekk ñi ma xam topp ma jugalu ma ma ba léegi waa Pikine xam nañu kii dàqu maa bëri dàqu maa fekk loolu laa la. bu te bu ñu xaar sa sax. duñ ko moom loolu loolu wax jëf la. beneen question bi ren da koy may mu jàpp ba doyal néew xam nga Balla Gaye ñëpp dañ ne bu jàppee làmb bu jàppee ci kéem làmb ceeb booy ñaan ren da koy may mu jàpp ba doyal ndax da nga koy confirmer waat fii. waaw loolu mooy mbër boo xam ne dafa limité mbër boo xam ne bu jàppul du bëre man damay bëre loxo damay bëre dama ne mbër boo xamante ni bu limité mooy mbër boo xam ne boo jàppul doo bëre man damay bëre loxo damay bëre tànk te moom dina xam loolu jàpp nag ku bëggee comme sax sax laa ma ko bëree Gris Bordeaux pare dama ne sax laa ma bëree Gris Bordeaux pare dafay kaas naan ngeen bu ngeen baaxul am bu ma jàpp parce que man boo ñaan naan ngeen ngeen boo xam ne boo yóotu jàpp ñëpp jàpp Père Gaston ak waa yaakaar naa ne ki ngay bëreel seetlu bi ñëpp def mooy depuis lool da mel ni xaw ma lan la quoi da nga koy minimiser wala da nga koy wan na ko da ko dàq bëre wala lan la ba tax da nga koo sori ci ay affaire am wala daa am looy karante ci moom te moom dégg nga léegi wax moom na pare na pour bàyyi la

laajte ko ne ko yaa ma yàpp mais sa supporter yàpp ma booy naa mi gis naa ko jóg sa tëkkalaa yoon tey booy naa lan la la ñemee kon man dafa leer suma carrière ba dootuma yëpp te samay supporter ci mbir moom man est-ce que sax du ci ah? du ci njëkk. du ci njëkk maanaam moo ciy njëkk. ma la wax dafa leer la. ah li ma wax sama supporter laa lay waxaat. waaw yëpp ma sama supporter te du ma leen mos a ah, ah. te bëriwatu ma yem. booy ñaar dégg nga li mu wax nee na yaa ciy du ma ci bokk parce que dama ko xam baax. doo si bokk. ah adversaire bi. waaw bu baax a baax. boo ko xam ne bu ko yàgg a topp. waaw yaa koo xool yaa koo gis. man visionnaire laa ci làmb mbër mbër bu ci nekk boo ñëwee toog ma wax la ci moom A ba Z damay xool ñëpp mais moo dama koo xam ki ba muy commencé ci làmb ñun Pikine fan la dalal baax fan la doon ñëw ñu ñoo ko doon yokk fit ñun waa Kine bii ñoo ko doon yokk fit kii jërëjëf dañ doon teg dañ doon toog ci dugal Abdoulaye Diop président moo xam na li may wax ñu nekk ay boy ndaw suba bu ñu dem entraînement dañu may ñu cent franc wala téeméer bu loolu mu ñu fa nekk champion bu loolu mu ñu fa nekk champion bu sotti ñu nekk ay boy ndaw di ñaan fukki dërëm ak cent franc yu ñu jëndee ci crédit suñu grand boo xam ne li ma koy wax ñu ñëw sees ñoom si ndaw ñu nekk ay boy ndaw bu gënoon bon foofu maanaam ñu nekk ay boy ndaw loo xam sax duñ sax daw la day ñëw rek roobam def boobu suñu def ñu ci moom boobu ba léegi waaw xam nga yàlla nag suñu borom mooy def combat bi bëri woon na jàpp jàpp fu nekk moom moo fa jaaroon fu nekk moom moo fa jaar te bu ma jaar mu dugal ko loxoom combat ma jaar yëpp moom ma lay bëre moom yàgg na ba jaar loolu fi ma jaar nii yëpp te bu ma jaar mu dugal ko loxoom dugg ci combat bi waaye yàlla suñu borom sotti na tey man ak moom ñu jàkkaarloo dara dox suñu diggante bu dëggalee boppam bu dëggal boppam ku tee yu suul ci stade bi ku mën na borom dugg incha allah. réew mi maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm. man ngi ndokkeel ci weeru gàmmu gi yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm di leen ñaan li ñu ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke seen naa Muhammad gars yi déglu leen li may laaj ñoom ñaar ku nekk benn question laa la laaj gars yi damay laaj Balla Gaye numéro 2 benn question laa koy laaj Balla Gaye numéro 2 bëreeg Boy Niang nga jóge ci Gris Bordeaux nekkoon super lourd bëreeg Boy Niang nga mobile wàññi poids wàññi sa yaram lu tolloo 25 kilos ba 30 kilos lan moo waral nga wàññi poids bi. da ngaa préparé pour Boy Niang nga moom ci wàllu bëre wala lan la ñuy xaar lu tax nga wàññi poids lu war a loolu. jërëjëf Fada euh, balaa maa wax ci question mooy damay wax ñu tontu Boy Niang ci wax mu wax que ni buy bëree damay dugal sama loxo ci ay combat am maanaam ma jot boobu bëri naa ba fi ma toll xaw ma loolu man soxor ma ñaanu ma xaw ma temps sax. parce que Serigne Saliou du ma nit ku bon du ma nit ku sawaas ba ngay bëri mooy dugal sa loxo yaa am jot boobu am esprit boobu dama ko gis moo tax aw ma sa jot dama ko gis moo tax ba may bëri bëri woo vingt cinq vingt cinq ans la am nekk roi des arènes am nga trente ans wala trente deux ans mais yow loo fi daan loo fi daan rek daanu lan moo tax Balla Gaye numéro 2 di bëri Boy Niang wàññi poids bi toll ak 25 ba 30 kilos lu waral loolu. làmb la rek làmb la rek làmb la rek. loolu ci tontu dara amul problème waaw mais Boy Niang laa laaj benn rek gars yi ngeen bàyyi xel li ma koy laaj Boy Niang da ngay bëri Balla Gaye numéro 2 te combat bi dafa am plan ak plan B. plan A bi mooy Balla Gaye ñëw sa kaw bu fekkee Balla Gaye daa ñëw def si ko andi ci lam mooy mu reseté wu dégg ko lan la Boy Niang di indi ci wàllu ci bi ba mën a dugg ci gàllu Balla Gaye 2 ba ngi ci jëppam ba ak day ñëw day dem ak day toog ak yoon moom la concerné mais man ma maa leen nuyu sama benn paa la deux maa ngi leen nuyu Pape Sarr jërëjëf a pour cent bu jëm bi maa ngi nuyu ñëpp am na loo xam ne sama yëf boobu la maa nuyu nag ñi ne jàppale mu maa ngi koy nuyu bu a a maa ngi lay nuyu bu maa ngi lay nuyu yow moom tey doo du jàppale ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu supporters yi. ca la normal bi koy nuyu. di leen wax mention spéciale supporters yi. maa ngi maa ngi jégalu sax mais Marley du suma frère mënuma wax te ñaanalu ma ko ndam. yàlla suñu may ndam ci barke bi sallallahu Sa Thiès yàlla na la yàlla may ndam bu sedd guy incha allah jërëjëf. jërëjëf ñu ngi ñu ngi félicité supporters yi di leen wax mention spéciale ndax lamb bu neexee.

pour affronter Balla Gaye numéro est-ce que pare nga pour xeex ak Balla Gaye numéro est-ce que pare nga pour bëri ak Balla Gaye numéro bi ci des. bi ci des mooy Balla Gaye numéro moom moo ko moom xam nga xale bi ngay dajee dafa dugg géejawaay am na mu fa am fu mu jaar ak les deux am fu mu jaar ak Parcelles am fu mu jaar ak Sa Kajoor am fu mu jaar ak Sa Thiès est-ce que loolu du la déstabiliser ci combat bi nga war a bëri revanche yooyu yëpp. waaw xaaral kay kay kay Papis a wax ci pay bi nee naa am na loo xam ne moom sama mbiru bopp la sama stratégie de combat wala laay bëree indi loolu sama yëpp bopp la waaye maa ngi doomu bi bii suñu borom defal ko tam ku soq doy. di nuyu ñaari champion yooyu di leen jox seen cër ak seen yàquwaay bu baax baax a baax di nuyu sama frère Awa Balde ak ma fi yaa toog ci bi yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax suñu mag ama seen ñu koy nuyu di ko dox ci waajuwaayam bu baax a baax kii lu koy daal nekk si ñun dañ ko xam bu baax a baax suñu mag fu ko jàpp du ko jaar na a da koy jàpp di ko dóor ay onze coups ci dañ ko xam waaw question moom li mu def géej waaye laa wax non man a guddi may la man ma revanche c'est sarak saa gis daaw. non non non ça n'est rien la. man ak moom am nañ ko man ak moom ñuy bëri. yaa ngi réer biir bu soo maa xam. wala xam bu baax ñoo def Pikine yëpp ñu ko wax xam na la bu baax a léegi nag kii des na benn question kii nga xam ne moom Mamadou Diouf ITV mais balaa moo ñëw ci question Mamadou Diouf dañuy wax espoir ki PPV bi ba yëkkati ma grand bopp bi Fabis moom mooy wax ci PPV bi ñi nga xam ne dañu nekk ci diaspora bi naka la mën a seetaane combat bi ci PPV bi Fabis. asalaamaaleykum euh, jërëjëf tonton. ñu ngi leen di nuyu di ziar ñëpp di remercier encore une fois tonton Gaston ak euh, Makan liggéey bii ñuy liggéey. Euh, juste que euh, combat bi incha allah ñu ngi ñaan yàlla ñu si bu baax le premier janvier ñu ngi wax ñëpp nekk vu que wàllu semaine bu mu Sénégal de semaine pay per view bi pour mu nekk diaspora ñu wax ne tamit jot nañoo ubbi vente yi képp koo xam ne bëgg na jënd incha allah rabi. am na prévente am na jour mais nag prévente bi dafay dem ba le vingt cinq décembre xam naa ne lañ wax ne prix bi dafa bëri mais yaakaar naa combat moo toll noonu kon de ce képp koo xam ne bëgg na ko jënd combat bi ñu ngi koy a à onze